ña nga jëm arène nationale dimanche 12 novembre Eumeu Sène Tapha Tine lamba sajetina laay lay la laa ko tëgg loolu ñu ne Albourakh Events moo leen le choc extraordinaire le choc des titans le choc des champions le rendez-vous de classe mondiale kookan la ñu ne Eumeu Sène dimanche takkusaan bu le grand champion Tapha Tine borom jirib ah mbokk yi ku drapeau Albourakh Events ne Abdou Lat Diop ministre des sports la ñu tuddee lamb la première grande sortie du ministre des sports ma nga nationale ñëw seetaan si Tapha Tine ak Eumeu Sène l'homme de Guédiawaye l'homme de Guédiawaye Lat Diop dix grands combats Boy Lo Michel Van Damme Niagas Body Kenjara Wuli Boucher Ketchup Boucher Ketchup rek jaral na maa dem lamb ja Mathieu Jacob Baldé Ndigal Weus Jambar Kolifay Dieng Thiatou Daouda Fall Kewel bur yi mbay guy gi ñu daal di taal lamp yi tafaatin daal di dugg si dàq si rip janoog ëma seen boobu choc kenn mësu koo gis kuy sa sponsor mu ne Fongip AIBD Lonase diwlin Jador Microsen CGIS ak CDC le combat sera retransmis en direct et en pay pour la diaspora loolu ma ngay amee te senaffiche.com ah mbokk wut leen gaaw seen i compte mais bu teew àndandoog senaffiche.com ma ne lamb ji lamb ji daañu ko te dëgg dëgg dëgg Albourakh Events yaa indi événement bu mag bi yaa indi le choc des chocs le choc des titans le grand rendez dimanche novembre arène nationale. ak mu métti métti nit dana ma romb ci mbir mi ñaari la daf may ñaari loolu ndax cofeel bu ma am ci man ak ñeewante waaye dañ koy sant yàlla moom loolu non su neex bi mu neex am solo. waaw ah, dafa neex. te xam nga ne du neex moom nit ki lu neex la bëgg. te yàlla xam na ni ñëpp laa war ndax mosuma bëgg dara du ñëpp a ngi ci mosu à la limite ñi nga xam ne xalaat naa ne war nañu ci bopp parce que mos na ñu dundee quarante mille ñoom it ci bëgg jël na boo ci jëloon benn mbir rek bay ñu jël yëpp war nañu kontaan parce que tu as parlé de ñoom nga wax boo jëlee kenn symboliser jax na mën naa seen mën mën na matal ci des mais comme morceau la buy duree entre trois et cinq minutes ma coppati ñi ma mën a coppati rek dugal ci moi j'aime tellement la musique mais tamit sama carrière dama def sama choix si ma bi ma fàtte mu yaa naa mi et seen bâche yu jaay na ko yàlla yërëm su ma tourné yi ba njëkk def ma ma defal benn surtout bu mu tourné woon ABCD nekk suma xarit nekk nit ku baax nit ku yarda wani da sakarar da ya zama mutum don usman da usman sise a bisa sai ku bora wani usman jami'a ya kamata ne eh, fun masa da wuce a duniya a duniya sauran kan barko sauran barko da wasu kamar da bora mai a bara ɗifi a duniya bora donc Modou Lo c'est bien cette question boo seetlu mel nii amul benn morceau ci ak parce que bu fekkoon da nga war a jël morceau bi Modou ma tàmbalee ko ca fin ba ca ba fin ba mooy soo motul fii ba fii ba deux mille trente sept morceau bi jeex parce que bu nekk morceau bu nekk quand on parle de métier c'est de prendre ici prendre ici ça dépend nag ci da nga def fii une minute trente man def fii trente secondes man def fii waaye da ngay rappel nit ñi rek waaw te morceau boobu nag moom rappel nit ñi mu tudd moom c'est très bien beau mélodiquement c'est beau am na nit yoo xamante ne bii quatre vingt deux ba léegi maa leen di wax dëj naa leen gis yàgg na surtout bi mu sekk bi sax xaw ma sër baa ñu ma nee toog ça c'est la surprise mais gisuma Younouss gisuma Ibou Sakho ñoo ne donc pour dire quoi xam nga parfois moom xam nga musicien bi day dem ah sa sa père musique bi ngay bari yow doo ay ay ñoom Bassirou Gueye nii nii gisoo too leen bu morceau force nga way ko parce que moomatoo morceau bi dégg nga ko nit ñi nit ñi lii la ñu xam mënoo ko gisuma nit gisuma Ibou Sakho ma seen mbay ba ko sanam gisuma Ibou gisuma Matar naan naan mais ndéem bi ko dal. ah. gis non non j'ai pas j'ai <laughs> dinaa leen di yàgg ñoo xam ne ñoom bokk nañ sax ñu ne sama doom bi sama doom yi ñu ngi nii waaw lu ma semaine bi daw. kon mais kontaan na. waaye. salaamaaleykum. aleykum salaam. olof sax dañuy faral di benn wax nee na uude ñu mën a gisee ñu ngi lay bëri choix bi ñu def ma wax bi ma def mais choix bi ñu def difficile wul ci man moom suma mag yi et c'est pas la première fois l'hommage des feux et ma mère. J'ai eu à le faire, j'ai eu la chance de le faire avec pratiquement tous les chanteurs de ce pays. moo tax benn mos pour def benn ak ñi nga xamante ni même suñu leen naree ñoo bokk génération am na sax ñoo xam ne ñoo ci man parce qu'il fallait partager. ça c'est la deuxième fois dama choisir jël xale yi nga xam ni fu mu dañuy wax ci man lu baax ak lu ma neex ba pare damay gis Alioune Mbaye Nder ci ñoom te adduna yëpp ko gis te amul ci benn complexe dama bëggoon jëlmal 30 ans de nouveaux morceaux morceaux yi sax des na ma wax na ñoo xam ne dina génn ay bële seen Valentin incha allah dañu egg dafa am ñu egg mais grand doole rek moo nooy album yëpp amul jeex te day neex Sénégal yi parce que Sénégal yi porte les Sénégal yi porte ndeyam dans le cœur loolu yàlla ko def macha allah mais boo gisee ñu def choix bi parce que tout simplement ñu bëggoon gën pour que xale yi nga xamante ni bii yàgg nañu peut-être parce que am na ñoo bokkal album bi ah morceau bi ñoo xamante ni xaj na bi may def morceau yooyu yi au moins bu cinquante ans ah. te seen témoignage ñu génnee ci studio bi ba way ba ba ñu enregistré avant ñoo dem ñu dëpp leen caméra te li wax ci seen biir xol ak seen dënn la jógee donc dañ def soirée.